ñu ngi nekk ci pegg bi fële ñëw di def provocation ñëw bëgg saboter suñu manifestation lenn rek lay tekki lii buñ ko defoon meetingu APR kon rey nañ càtt lii buñ ko defoon meetingu APR kenn du xamee kilifa et policiers yi nga xam ne ñoo fi nekk ma leen di interpeller les policiers qui sont là et qui laissent des gens venir faire de la provocation dans notre manifestation c'est tout simplement inacceptable du dëgg du yoon policiers yi lay waxal yéen mii di bàyyi des gens qui viennent provoquer pour saboter notre manifestation ngeen ne pat du dëgg du yoon policiers yi lay waxal vous êtes des policiers du peuple sénégalais vous n'êtes pas des policiers du président Macky Sall vous n'êtes pas des policiers de l'APR Vous n'êtes pas les policiers de Benno Bokk Yaakaar donc assurez la sécurité lu fi mënta xew nag du frappe du yanamar yéen la kuñ fi dóor du frappe du yanamar yéen la tout le que ça soit clair lu fi xew du frappe du yanamar yéen la kuñ fi rey du frappe du yanamar kuñ fi gaañ du frappe du yanamar jërë ngeen jëf lii day wane na ñun ay nitu jàmm lañu ndaxte bu ñu nekkul woon ay nitu jàmm kon deme na neneen mbokk yi nañu continuer nekk ay nitu jàmm mais nitu jàmm yoo xam ne am na loo xam ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg tey nag li nga xam ne moo ñu fi indi mooy yoon bi nga xam ne dañoo ne dafa jéng yoonu senegaal dafa jéng waaye am na solo ñu waxtaan ci lan moo tax yoonu Sénégal jéng gis ngeen mbokk yi foo munti dem ci àddina bi réew boo mun a dem bu fekkee askan wi dafa jiital ay ndaw bu fekkee askan wi dafa jiital ay surga surga yooyu di sàcc alalu askan wi munoo muusa ko waane ba duñu sàcc justice bi ba duñu sàcc élection yi ba duñu sàcc police du ñu sàcc gendarmerie autrement dit ay njiit bu ñu détourner les ressources d'un pays nécessairement ils vont voler les élections une élite quand elle vole les richesses d'un pays elle va voler les élections bu ñu détourner xaalisu réew mi nécessairement dinañ détourner la justice dinañ détourner la police dinañ détourner la gendarmerie c'est quoi détourner la police au lieu que police bi nekk une police au service du peuple day nekk une police contre le peuple c'est quoi détourner la gendarmerie au lieu que la gendarmerie nekk une gendarmerie au service du peuple car payée habillée nourrie logée par le peuple mu nekk une gendarmerie contre le peuple justice au service de l'émergence mooy justice boo xam ne du seetaan le directeur général de la poste Abdoulaye Bibi Baldé foog ne la poste c'est son dibi moom Bibi dafa jàpp ne la poste c'est son dibi moom Macky dañoo jàpp ne la poste Senghor Djiby une justice au service du développement mooy une justice boo xam ne day aar les deniers publics mooy une justice boo xam ne du toog seetaan yow président Macky Sall say ministre say directeurs généraux say maire di sàcc mbokk yi justice bi wóorul sax pour waa APR ñun ñi fees fii dell ci manifestation bi on se bat pour nous ñu ngi xeex pour suñuy doom di xeex pour suñuy set mais on se bat même pour les gens de l'APR ndaxte ëllëg dinañ daanu bii mooy le deuxième et dernier mandat du président Macky Sall te ëllëg buñ leen toroxalee du baax ci ñoom donc même bu fekkee ñëw ñuy dóor di ñu soxore di ñu tëj en réalité ñun on se bat pour nous on se bat aussi pour eux on se bat pour tous les citoyens sénégalais tàccu leen seen bopp bu ñu waxee ne justice bi dafa jéng li ci ëpp solo lan moo tax justice bi am melokaan bii président Macky Sall la li ëpp doole ci lan moo tax justice bi am melokaan bu ñaaw bii kumba am ndey kumba amul ndey làkk doom doom tëj Khalifa tëj xawma gi Marius tëj Karim Wade tëj Kilifeu te doo tëj Bougazelli te doo tëj Siré Dia Poste te doo tëj Bibi Baldé Poste te doo tëj Mbaye Prodac ñaa te doo tëj xawma kan ak kan te doo tëj Aliou Sall suñu 300000 suñu 400000. 400 boo wàññi 400. suñu 400000 président Macky Sall moo tax justice bi jëng benn te dinañ continuer xeex bi ci gëstu. waxtaan ci ay forum ci état généraux de la justice wala assise nationale de la justice ndaxte xeex bi mobilisation la waaye tamit xalaat la Macky sàll moo tax justice mel ni mu mel waaye mbokk yi doyul du loolu rek li tax justice bi jëng tamit mooy ñenn ci juge yi ñenn ci magistrat yi nga xam ne amuñu full ak fayda jëkkër bu tooy wala jabar bu tooy oto bu tooy ceeb bu tooy kër bu tooy ba il refuse d'être indépendant ndax bëgg jël ay enveloppe ndax bëgg jël su patro buy noot employé ndax ay pàkk ay parcelles yi ñu leen di jox ginnaaw bu ñu fokkatiwee suufu béykat ak suufu sàmmkat oui il y a des juges et des magistrats qui refusent d'être indépendant honte à eux honte à eux ñooñu mënuñu wax rek Macky Sall tudduñu tuut baaraam ñooñu nañu waxante dëgg ndaxte juge bi bu jàkkaarloo Guy Marius Sagna donc trois mois de prison wala six mois de prison Macky Sall toogul foofu juge moo toog foofu donc c'est important bu ñuy wax président Macky Sall ñu duut baaraam les juges et les magistrats qui refusent d'être indépendants waaye foog ñu duut baaraam yow waaw yow yow yow yow mi nga xam ne saay boo amee problème justice ngay ut ay numéro téléphone juge ngay jéem a xam juge bi nga xam ne moo yore dossier bi nu mu tudd kan mooy sëriñam kan mooy peeram ngir woo ko pour ne ko waaw defal nii dugg na fi donc nous avons également une part de responsabilité nañu waxante dëgg ñenn ci ñun am nañ part de responsabilité buñ la tëjee kaso looy njëkk def waaw dama bugg a am numéro téléphone ki jiite xaw ma directeur kaso bi pour nga am lal bu baax. non lal bu baax ça doit être pour tout le en prison waru la am lal bu baax pour doomu borom barke ak lal bu bon pour doomu béykat doomu sàmmkat doomu boucher doomu artisan. donc ñu ne itam oui yow yow mi ngi lay waxal yow ak man ñi nga xam ne ñun ñooy dem ci suñu kilifa diine yi ne sama sëriñ jàpp ci sinon ma dem tëdd kaso évêque bi wala kilifa diine bi woo monsieur le président ne ko bugguma sa taalibe kercen bi wala sa xaw ma sa taalibe musulman bi bugguma mu dem kaso voilà aussi une manière de faire buy tax la justice jéng bu ñu buggee tamit justice jaar yoon dañuy xeex ngir fexe ba justice jaar yoon nga xam ne kenn du soxla woo le curé ou l'évêque ou le khalife général ou le sëriñ ñun ñëpp ñu yem si ñun itam bëri nañ fii ñoo xam ne ñoom bokk nañ ci ñii tax justice nërmelu nañu bàyyi yooyu dëgg la pour ñu yomb dañu ñu ñëw xeex pour justice jaar yoon ñuy woo téléphone c'est important de le dire et donc justice loolu mooy tax mu jaar yoon kilifa ñu lay jaajëfal di la wax ne xeex bi day continuer fi may daanelee mooy président Macky Sall bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci biir kaso yi war a am contrôle judiciaire te amuñu ko war a am liberté provisoire te amuñu ko ñu war leen entendre te entendre ñu leen ñu war leen atte te atte wuñ leen ndax lan c'est suñu rëkk ci Marème Faye Sall sa suñu rëkk rëkk ci président Macky Sall sa suñu rëkk ci APR loolu du dëgg du yoon